secteur boobu. ba nga war ko obligé yokkaat aussi loolu tamit day gën a métti ci askan wi te askan wi soxlawul loolu. Hmm. alors le président est en train de euh, euh, mu ngi dalal à travers des audiences ak ay concertations le secteur privé syndicaliste yi centrales syndicales yi ak ñenn ci ñi nga xam ne jàpp nañu ne euh, ci loolu ñoom la war a mën a sukkandiku ànd ak moom doxal ak régime bu bees bi naka nga jàngatee la démarche. c'est une démarche républicaine je pense que lu yàgg di am la noonu la di tëddee. Euh, ñun nag dañu bëgg changement mais waxuñu ni dañuy bëgg jël Sénégal itam créer Sénégal bu bees ah donc on respecte quand même yi fi daan am loolu moo fi am li ñuy xaar peut-être bi part rek ci secteur privé bi mooy mu bañ a nekk secteur privé bi mu doonoon mm-hmm. mooy euh, secteur privé boo xam ne dañ koy fermer mm-hmm. ci benn cercle d'individus mais ñu gën ko élargir ba nga xam ne euh, sénégalais lambda yi nga xam ne itam ñu ngi ci Sénégal te amal njëriñ économie bi tamit dañuy mën a bokk ci loolu ba pare itam ñu nekk aussi benn force pour accompagner mhm. euh, les politiques du gouvernement te président wax na ko voilà accompagner leen bëgg na compter ci secteur privé bi mhm. euh, pour liggéey réew mi et puis la création d'emplois waaw parce que xam nga état état li mu mën mooy bi nga doon wax sax voilà état lu mu mën mooy créer des conditions pour mhm. que nit ñi mun a liggéey facilement mais directement du état mooy créer emploi mais indirectement la koy créer donc c'est quand même suñu secteur privé bi quand même état yombalal na leen ko ci lu bare. mais xëy na seen seen zone de d'investissement moom la ñu bëgg mu changer c'est-à-dire que fi ñu bëgg ñu investir mooy fi nga xam ni dañuy jël ay xale ñu ciy xëy du ci gont du nekk rek ay investissement yoo xam ne peut-être dina am xaalis mais ñi fay xëy du bëri donc hmm. retombées yi nekk ci askan wi du bëri li ñu bëgg mooy ñu accompagner euh, gouvernement bi ci création d'industrie création de d'unité de transformation loo xam ne xale yi dañ ciy xëy di ci gont gis ci seen bopp mhm. loolu nag c'est tout à fait normal est-ce que mën nañ xaar mhm. changement de paradigme wax nga ko léegi ci secteur privé boobu parce que quoi qu'on on peut dire que ne suñu secteur privé dafa xaw a dañ leen xaw a beddi au détriment wala au profit des entreprises étrangères ci marché yi ñu leen di jox commande publique yi déjà su ma la joxee exemple et on l'a dit hier à travers notre euh, invité Amadou Ly Akile mi wax ne mi wax ne en 2019 par exemple entreprise Vinci euh, mhm. dafa jotoon marché gré gré bu 200 millions d'euros en 2022 23 yeneen 200 millions également mhm. mu jotaat ko ci marché euh, gré à gré 200 millions d'euros muy 400 millions d'euros yi nga xam ne jox nañu ko benn entreprise bu yëngatu ci wàllu énergie di entreprise bu nga xamante ni étrangère la alors te loolu mën nañ jàpp ne bu ñu ko joxoon ci dix euh, entreprises sénégalaises rek daañu mën a am euh, supposons euh, vingt huit milliards ci ci ci marché. alors loolu est-ce que le président de la République jotul mu gën a may doole sa secteur privé national bi nga xamante ne ni ay champion la ñu ñu ne te utiliser wu ñu leen sous région bi moo leen di jëfandikoo. waaw xam nga jotul moom boo ko waxee mooy daf ko waroon a def def comme li ma la wax dañuy doog a tàmbali. <laughs> yow amoo droit nag bàyyi di sukkandiku bàyyi di sukkandiku ay doog a tàmbali ak yooyu maa ngi nuyu sa invité boobu. di suma frère ah suma nijaay Amadou Ly ak lii mu nekk nit ku euh, macha allah nit ku am solo. koo xamante ne nit ñi xool bu ñu xoolee exemple ci moom rek mu nekk doomu Sénégal boo xam ne peut-être mënoon na jël. expertise def ko feneen def ko def ko fi ak bare na ci. voilà mais juste pour wax ne loolu moom laa lay wax ni forcément changement de paradigme day am am mhm. parce que euh, li tax muy am mooy vision wu président de la république Bassirou Diomaye fay mooy euh, euh, promouvoir te wax na ko industrialisation changer xar kanamu Sénégal mhm. peut-être marché gré à gré yooyu nga doon wax ci ay defarum tali defarum yenn infrastructure yi xëy na loolu moo nekkoon vision wu président Macky Sall. Hmm. jàpp naa ni waxuma ni duñu defar ay tali. rupture mais ñun rupture bi ñu njëkk am mooy déjà dañu ne li am solo te loolu tamit amul rëkk buy développé développé wu te amoo industrie. Hmm. ça n'existe pas. Euh, dañuy dem sax ba ay nit di yëkkati ay kàddu foog ni suñu xale yi dañu dañu dañu tayal. Hmm. Ah, xale yi ne ci mbedd yi gàddu seen ay ay ay saak amul leen njëriñ. bu ñu amoon fu ñu xëy gontu daan fa seen doole am sécurité sociale am des avantages mais du ñu nekk ci mbedd mi naaj bi di leen rayi dañuy dem xëy liggéey te comprendre nañu loolu. donc loolu mooy mooy suñu objectif mm-hmm. te donc foofu nag foog naa ni boo demee ba nga xam ni ñuy ay industrie loolu bu état tegee des condition ba nga xam dinañ mën a am des partenaires yu ñëw def transfert de technologie secteur privé bi nag moo war a jàppale état bi pour accompagner te gëm naa ni ils sont dans cette dynamique day fekk euh, état aussi jox leen bopp jàppale leen moom it waa ah, état moom xam nga mooy jàppale ñëpp comme li ma la wax léegi état li muy jàppale état du Sénégal dafa mës a jàppale secteur privé bi nag hmm. moo xam ci nii wala ci naa parce que rien que le fait accompagner secteur privé bi ci taxi yeeg ci yenn yi mais ay jàppandal la hmm. ay jàppandal la mais c'est que c'est ensemble qu'on va construire ensemble lañu war a construire ce pays là jomaay buy tukki par exemple euh, champion yëpp ah ci yeneen i réew présenté leen yeneen i gox foofu laay waxee en fait su su fekkee bëgg na atteindre objectif bu mu bu mu bu mu bu mu teg ci kaw table muy fexe xeex chômage ndaw ñi et puis wàññi. waaw mais Mouhamed ki fi doon tukki di and ak gars ñi di leen yóbbu lan la amal njëriñ sénégalais xam nga aussi noo jël benn pratique boo xam dafa def ses résultats. Mm-hmm. nga ne il faut reprendre cette même pratique pour juste wane ni mën nga def la même chose que les autres loolu amul sens quand on dit rupture. c'était oui mais bon quand même y' a quand même ñaata le président Macky Sall yëpp ay nit ci bagage am yi. Euh, yóbbu leen ah voilà donc fooguma ni loolu mooy la solution parce que quand su suñu secteur privé bi loolu soo ko waxee sa da leen di réduire. Mm. parce que c' est pas des gens yu namm ay tukki yi président. non pas tukki dans ci wane ci li nga xamante ne la sous-région. mën a jaay li nga xamante moom moom la ñuy def parce que gis nañ ici au Sénégal lu ëpp ci euh, yenn travaux yu mag yi fi am étranger yi ñoom lañ koy jox peut-être tey ji expertise sénégalaise bi nga xamante ne am na fi buy dem mu jaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo di eh, eh, secteur privé suñu champion yi à l'étranger en fait pour ñu mën a gagner ay marché hors du Sénégal euh, moo li may wax moo tax mm-hmm. ma ne suñu secteur privé bi en tout cas ñi am vraiment jom mm. xaaruñu benn état pour mu jaay leen à l'étranger ah parce mhm. que je pense que société fi nekk ne muy CSE consort je suis désolé ñu ngi déjà dans la sous-région di doxal seen mbir c'est pas là qu'on attend un chef de l'État c'est pas un chef de l'État moo war a jël ay investisseurs sénégalais di leen di leen yóbbu feneen xam nga sénégalais lu ñuy xaar chef d'État mm. mooy plutôt mu fexe ba ñooñu jël seen xaalis investir ko fii ci Sénégal mm. liggéey fii ci Sénégal xale yi xëy fii état jël leen favoriser leen teg leen ci kanam hmm. balaa kenn di am marché yooyu ñoom ñu am ko en tant que ay doomu Sénégal hmm. parce que loolu dara nekku ci hmm. c'est-à-dire que lu lu lu normal la loo xamante ne dañ ko waroon a def defuñu ko foofu la ñu war a mais bu foog naa bu ñu am bu ñu amee loolu ñu jox leen ay ay marché ñu nekk di liggéey tal nañu leneen lu dul di dem di ànd ak président pour di wuti yeneen marché à côté de ces aussi c'est des et puis ils aussi besoin contribuer dans ce changement d'accord à côté ci bi mu recevoir patronat bi recevoir na également centrale syndicat yi parce que également ñu wax ci ab pacte social boo xamante ne mm. peut-être dina apaiser eh, climat social bi parce que gis nañ grève yi xaw naa bëri ci yenn secteurs yi eh, noo gisee également jafe-jafe yooyu nga xamante ne ñu ngi koy gis eh, ci liggéeykat yi surtout ci condition de travail yi d'autant plus que ne envoyé woon na leen une lettre boo xamante ne mu ngi ciy wax ñu jub jubal te jubbanti bu fekkee également à côté seen nekkin neexul dafay xaw a métti waaw moom euh, euh, c'est c'est le le Sénégal mm-hmm. parce que quand même euh, bu ñu duggee dégg-dégg rek Sénégal euh, fépp la ñu war a defaraat jikko yi. Hmm. Euh, du ci administration kese du ci syndicat yi kese ba ci sénégalais lambda bi sénégalais bu ci nekk dafa war a xoolaat boppam. Hmm. je pense que am nañu quand benn départ bu am solo mooy cette ce réveil. Euh, de la conscience citoyenne hmm. bu nga xam ne sénégalais namm nañu ni voilà dañu bëgg changé il faut aller au-delà il faut que sénégalais bu nekk léegi ñu ngi koy gis quoi mu ngi commencer maintenant on ne peut pas avoir les résultats ah, xam nañ ni sénégalais il faut des décennies pour que mbir yi changé mais foofu lay woo ñëpp mm-hmm. parce que euh, état